jamono ji xew-xew bi réew bu Sénégal ak bitim réew ci Afrique sowu jant di waxtaanee moom mooy ubbiteeg jumaay Masaalikul Jinaan jumaa ji leen nag murit yi def ci seen aw ñàq waaye tam def ci Pastef mën a taxaw tey jii bokk ci jumaa yi gën a mag ci dendub Afrique bile. sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xal général des Mourides ñëw ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub satunbar bi ñu nekk jóge ba Touba ngir ñëw def ay fan ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Ndakaaru waaye itam ngir ubbi jumaa ji ajuma ji ñu dëgmal boobaak nëg ñi nag ba ñu annoncé li nga xam ne moom moo di ouverture jumaa ji mbooloo mu takkoo takku la ñuy nemmeeku ñu bàyyi ko ci ay gox yi fasantikoo ci biir réew bu Sénégal di ñëw ngir di amal seen ay visite waaye itam di amal seen ay ziar ngir dégg gi ñuy dégg jumaa ji ak yéeme gi nga xam ne ni yéeme na ko lool li nga xam ne moom mooy xibaar bu yees bi moo di ne jumaa ji jamono ji dañu koo tëj jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom taalibe bu ñu ñëwee duñu mën a ci biir jumaa ji xanaa rek bokk ci programme ak conférence yi nga xam ne dañu koy amal esplanade bi nga xam ne nii moom mooy esplanade bu jumaa ji jamono ji nag kilifa yi di fësal ne mbir mu nu mel dañu koo def ngir indi ak ak cellange waaye itam organisation ci biir jumaa ji ba bu ajjuma lépp li nga xam ne nii waajal nañ ko fi mu mën a yemb ba kilifa yi bu ñu ñëwee ñu mën a julli julli gu mucc ayib ci kanamu xali général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké